xaaral ma jóg tani ca saak xalima bind di jooytu ci jikko ak jëf yi ni xuus ci réew mi tey mata jooytu jikko yu baax yi fi nekkoon tàggoo dem te du delsi jikko yu bon yi ni xaas ñëw te ak ñëwam jara ñaxtu tey rekk ngay xëy dégg ci réew mi nit ku taxaw wax naan waxidof ci la tedd ba tax na namm la jooytu tey rek ngay xëy gis nag ci réew mi góor gu ni lëng solub ndoket wala tey baas di wic di dox te du maytu sun réew mi rek de ci laa gis photo yu nooyu média yi ña gën di def yëfi dof rek ñoo ëpp temps di fa waxtu sun réew mi tey de ci laa gis kilifa gu xëy waxi kàddoom ëllëg mu xëy wori kàddoom weddi waxam ya di jooytu sun réew mi rek de ci laa gis ku jub ku baax di fi sellal ñu jël la sànni ca gannaaw nga toog ni xewu di ñaxtu suñ réew mi rek de ci laa gis ku jàng am sa lijaasa ba noppi xëy di wëndeelu lii rekk moo jara ñaxtu suñ réew mi rek de ci laa gis mbëggeel gu ay wor rekk lal ku jekk ko rek sa morom def ko jëf ju ñaaw di ko coytu suñ réew mi tey dafa manqué valeur yu baax yi tax nit di yóbbu am réewam jëm kanam li lee jara jooytu ngor ak juba xam-xam tey ab yarde mooy li fi manqué man mii di bind de Mokhtar li lee fi tax may ñaxtu ngor ak juba xam-xam tey ab yarde mooy li fi manqué man mii di bind de Moxtaar li lee fi tax may ñaxtu